dafa am benn waay bu ma nii dama dégg ni mag ñi daan nañu tukki réew ak réew pour faj jàngoro jikko ma ni ko waaw waaw fekk Sidi Mahamadul Xaafid ngi toog sama najaayu bopp ji wallaay yàlla dogal rekk gànnaar ma am fa sama najaayu bopp yoo xam ni tabarkal la dañu xaritoo won ak sama wayjur yi way ñi ceeb it ñoo alquran wa muni wa dal daal bi dafa am lu ñu yar ci sunu famille muni ta sama yaaya ko def daf nuy wujjele ba fi mu ne ñun ñepp ku ne morom mu wujj la ko japp ma bëgg xam man réew lay dem pour ñu fajal mako ma ni ko Sidi Mahamadul Xaafada mën na la ko fajal lu taxaw sax mu defe ni daf koy bindal saafara wala daf koy takk takkal téere mu ni ko del jàng suratu Yuusuf te di ko teylu di ko teewlu waaw rekk waaw doonte benn yoon tous les six nga koy jàng te teylu ko teewlu ko bu yàggee dinga génn ci kujj ndax mu ne ko kujju dafa rey xol te jullit bu xolam dee yàlla soxlaatul jaamam waaw kujju baaxul waxuñu kujju jaari jigéen yuy sëy mais kujju ay nit yu bokk benn famille lañu wax góor ñetti wujje jigéen ñetti wujje xale yetti wujje mag ñetti wujje catastrophe parce que daf leen dul jox lu yàlla namul ci ñoom dañu wujje ba xëy dee rek ñoom ñëpp dem safara waaw moo cay mujj waaw moo tax ku baaxul dafa rey xol te boo ca àggee dëgg loo xam looy def loo xam looy wax loolu moo tax mu ni ko del jàng sóoratu yuusuf te di ko teewlu di ko di ko teeylu di teewlu maanaam di ko teeylu ndànk ndànk ak di ko teewlu maanaam yi nga firinu ko waaw wante mësuma gis mukk téere bu amal nit ñi njëriñ comme téere bi yàlla wàcce ci yonent bi waaw amul